mais man soo crainte ak ak ak ak élection yi c' est ah. Karim Wade. tey jii depuis que mu jóge fii Karim Wade ban idée la nit ñi am ci moom pour la ma bon mi ngi toog jàpp njàmbaram c' est que am na ay nit ñu nekk ñoom te dañ ko contre depuis depuis c' est des c' est histoire yu yàgg la donc te aussi bien dans les médias que dans les milieux affaires médiatico ok mais Karim. li tax eh, candidature am eh, am importance mooy c'est c'est lien avec le Qatar le Qatar c'est le troisième pays producteur de gaz tey quelqu'un qui est c'est lié avec le Qatar ñëpp xam nañ si s'il devenait demain président de la République du Sénégal bu renforcer ses lien avec le Qatar mais ak fula ak fayda par ñëw jébbalu Qatar aujourd'hui le Qatar a investi vingt cinq milliards de dollars d'euros en France vingt cinq milliards de de dollars mais boo ko convertir euh, ci xaalis Sénégal mais c'est des c'est des milliards c'est des milliards de francs CFA si on peut avoir un aller stratégique comme le Qatar bi son influence à travers le monde tey ji boo xoolee même au niveau de Hamas et d'Israël Qatar Qatar ci médiateurs yi ak gën a am doole ci la bokk donc ñooñu tey ji dafay nekk loo nga xamante ni lu lu lu lu lu am solo la donc te Karim bu ñëwee papaam nekk fii Abdoulaye Wade nit ñi bëggee mu gën def déclaration le milieu mouride jóg parce que tout euh, tout euh, euh, le PDS a toujours gagné le milieu mouride le milieu mouride jóg ñu jàppale ko plus les frustrés de la gouvernance de Macky tey ji boo xoolee en 2019 Ousmane Sonko dafa gagné ay locales yoo te ni ci dëkk ci biir Waalo mosu fa teg tàngam mais foofu PDS moo ko mos a gagné mais comme Karim bokkul ñu ne nañ votel Ousmane Sonko moo gën a la contre. ça peut être l'effet contraire. mais l'effet contraire tous les contrairement à ce que les gens pensent nga léegi bo les militants de Sonko là ils tous massivement voter pour pour pour Karim bu fekkee Karim bokkul bu fekkee Sonko bokkul. et ça va donner quoi. mais attends mais écoute. ça va donner quoi non Karim da nga bëgg nag Karim mën na obstruer les chances. Karim bu ñëwee fi Karim bu ñëwee fi wàcc fekk ñaari jet privé ànd ak Al Jazeera Al Arabia. France 24 ñëpp jóg mu jàpp jour comme ni papaam doon def wàcc fii balaa gars yi comprendre lundi dimanche lundi ba ñuy comprendre. il prend le pouvoir. non il c'est mais Karim c'est une menace contre le le le Benno Sénégal c'est c'est c'est évident. non Benno Bokk Yaakaar Benno c'est évident léegi nag benn problème am mooy problème nationalité bi le vendredi passé renoncé wul woon à nationalité est-ce que problème mu euh, amende bi culture fiscale bi dana ko am mais man su ma nekkoon place pouvoir bi. damay bàyyi Karim bokk parce que xawma mais bu Sonko bokkulee mu nekk benn foyer de tension nga bloqué Karim deuxième foyer de tension ak ñoom ni euh, parrainage bi moo leen di bloqué mu nekk nga créé nag un groupe de un foyer de tension qui va contester le processus électoral rejoindre euh, Sonko élection yi day jaxasoo. alors il faut éviter.